wa ala alihi wa asxaabihi wa xayri xadimihi dawi ridwani wattamkin subhanaka laa ilma lana illa allamtana innaka anta alalimu alxakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi dellu siwaat di sant suñu borom subhaanahu wa taala di julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa di leen nuyu bu baax xam eh, yéen a ànd ak ñun ci eh, GMT TV muy Grande Mosquée Touba télévision eh, fii fii Touba maa ju tedd ji ñu ñëwaat tey nag ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci mm, suñu jataay yi nga xam ne dañ koy amal te ànd ko waa daayira muqaddamatul xidma mu jëm ci euh, xayaat Cheikh al Xadim di dunduk sëriñ bu mag bi ñuy ziar ñëpp nag di ndokkeel ñëpp rawatina ci weeru koor wu tedd wi nga xam ne ci lañu nekk bisub tey bii dëppook fukki fan ak ñaar ci weeru koor ci atum 1442 waaye tolloog ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril ci atum 2021 ñuy ziar bu baax nag kilifa gu mag gi nga xam ne moo ne ci kanamu njabootu sëriñ bu mag bi di euh, al cheikh Mouhamadul Muntaqa xafidahu llahu taala wa raah ayyadahu wa nasara soro ñaan yàlla guddal fanam lool te wéral ko ba mu àggalee li mu naaral sëriñ bi ci tuubaa ci dëkkam bii di tuubaa waaye ci e, mboolem lislaam bi ci mboolem jullit ñi di ko ñaanal mboolem ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey bi di ko ñaanal itam mboolem kilifa yi diine yëpp di ndokkeel ñoom ñëpp ci weeru tedd wi mbokk yi xam ngeen ne ci suñu jataay yi jàll jotoon nañu ñëw ci njëlbeenug sëriñ bi tàmbale woon ci ay cosaanam teg ci itam ak feeñam jamono ak it ya nga xam ne moo lëkkaloog feeñ ga ci ay xew-xew ci yenn xew-xew yoo xam ne yu taarix tudd la waaye ci suñu jataay bu mujj bii nga xam ne moo nekk jotaay moo nekkoon ñetteelu jotaay bi jotoon nañ cee eh, indi eh, loo xam ne aju na ci cosaanal dëkk bi nga xam ne mooy dëkk bi sëriñ bi feeñee jamono di Mbàkke Bawol eh, tey nag bala ñoo ñëw ci am njàngam moom sëriñ bi ak fi mu jaar ci wàllu alquran ak xam-xam dañoo bëggoon rek taxaw tuuti ci li ñuy tuddee al muhit al usari wala al bi al usariya eh, li Cheikh al Xadim maanaam millier familial bi nga xam ne eh, ci la sëriñ bi feeñe Euh, ñi nga xam ne ñoo ko séq di ay jëmm yoo xam ne dañoo mat a xamle ngir dañoo am wàll gu am solo boo xam ne dañ ko taxawee ci nekkeenu sëriñ bi ci wàllu xam-xam waaye ci wàllu yar ak ci wàllu doxiin jëm ci boroomam muy ñoo xam ne kon faaw mënee sulee na ñàkk waxtaane ndax dana tax ñu gën a xam ne Cheikhul Xadim radiallahu anhu ni mu mel ginnaaw tawfiqi suñ borom ji nga xam ne euh, Cheikh Mohamad al Basir da koo tënk ci ñaari baat rek wax ne xuliqa rabbaniyan euh, loolu loolu tawfiqi suñ borom la mooy ne suñ borom da ko bind mu nekk Eh, nitu yàlla koo xam ne léppam eh, dafay tegtale suñu boroom màggaayu suñu boroom ak sañ-sañam ak kattanam waaye ginnaaw loolu nag ñu xam ne am na ay jaaruwaay am na ñu ko séq ñoo xam ne te asiir nañ bu baax a baax jeexital nañ bu baax a baax ci moom te ñooñu itam doon ay jëmm yu tedd yu ma taxam moo tax incha allahu taala jataayu tey bi dañ ci tàmbali tudd ci ñenn ci ñooñu xam xamle aslaf ci seeni jaar-jaar ak seen dund ñooñu nag ku leen tudd mënoo njëkk a ci kenn ku dul ay juróom ñaari waajuram yu tedd yi nga xam ne ci ñoom lay ko yàlla jaarale muy sëriñ Mbàkke Mor Anta ak soxna jaaratullahi Mariama buso kon dañuy tàmbulee ci sëñ Mor Anta Sali suñ Mbàkke Mor Anta Sali mi nga xam ne ku ne xam na ne jur wu mat jur la te taxaw taxawaay bu mat sëkkit nag taxawaayu wayjur boo xam ne taxawaay boo xam ne ci wàllu njabootam maanaam ci ci ku baax ki ak ñi ñi nga xam ne ñoom la bokkal ñoom la bokkal askan wi ñoom la bokkal wayjur moo xam góor walla jigéen taxawaayu boo xam ne taxawaayu kilifa la sëñ Moor Anta Sali taxawa ne ko ci wàllu googu wax moo xam ci wàllu jàngale la ci wàllu yar la ak lépp loo xam ne rek luy tax euh, euh, euh, ñoom ñu ñu ñu ñu mat li ñu doon doon li ñu doon itam moom nag moom sëñ Mbàkke Mor Anta bu ñu delloo ci li nga xam ne bindees na ko ci moom rawatina gëstu bu am solo boo xam ne suñu mag di suñu mbokk def na ko ci moom di sëriñ Mbàkke Abdourahman tënk na ci tënk bu am solo boo xam ne xamle na ci yi nga li nga xam ne moo mat xam ci moom te lépp mu sukkandikoo ko benn ci waxi Cheikh Mouhamadul Bachir ci Minam wala ci Irwa wala ci waxi Serigne Moussa Ka ak euh, mboolem daal delluwaay yi nga xam ne mooy delluwaay yoon wi bu ci gëstu boobu danañ ci fekk euh, muy wax ni sëñ Mbàkke Mor Anta Sali mi ngi gane jamono ci Mbàkke Bawal ci atum junni ak ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-benn ci ati gàddaay gi loolu mooy 1236 war a tolloog 1820 ci ati tubaab nañ ko waxe woon ba ñuy xamle. Euh, aw askanam moom ku baax ki Seexul Xadiim ci jataay yi weesu waxoon nañ ni wooy juróom bu baax wi di sëñ Mbàkke Mor Anta Sali wooy góor mi ngi tudd maam Habibullah di maam Balla maam Balla wax nañ ni ko xamee mooy caatum maam Maharam mi nga xam ne moo euh, sañ dëkk boobu di Mbàkke waaye wooy juróom bu jigéen moom sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali mooy soxna Anta Sali kan comme ni ñu ko waxee rek ci buñ koy tudd sëriñ Moor Anta Sëli soxna soxna Anta Sëli kan mi nga xam ne euh, ku ne xam na ne fi mu bokk askan wi bokk askanu xam la askanu diine la moom soxna Anta Sëli bokk ak lépp fóore ju mag ja nga xam ne moo nekkoon fii ci njax kan di a Cheikh Ahmad Bint Kan nga xam ne Cheikh Mahamadul Bachir bi mu koy melal daf koo melal ci al aalimul jalil alwaquur alxaafid almutqin boroom xam-xam la bu màgg bu wegu bu bu mën a mokkal te mën a xereñar ñoo euh, ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo séq sëriñ Mbàkke Moor Anta Sali ci wàllu way juróom wu góor ak way juróom wu jigéen euh, moom sëñ Mbàkke Moor nag yàlla dogal na bi nga xamee ne toll na ci war a jàng fépp foo xam ne fi fu doomi soxna di jaar jaarale jaarale jaarale nañ ko fa ci diggante njaambur ak dégg nga kajoor ak saalum ak fépp foo xam ne rek taalu jàng bu mag amoon na fa ak bawal <coughs> jaar na foofu ndax moo ñoom ni ni ngeen ko xamee euh, fi ñu bokk dañuy atti euh, ay niti daara di ay atti xam-xam diggante alquran ak xam-xam euh, dafa fekk foofu baax waaye bokk na ci ñi nga xam ne borom xam-xam yu màgg yi nga xam ne jaar na ci seeni loxo te Cheikh Cheikh Amadou Bachir tudd ko te sëñ Mbacke Abdourahmane andi na ko ci gëstu bi may wax ni eh, am na ci ku ku siiw ku ñuy wax sëriñ Masamba Anta Ceebo sëriñ Masamba Anta Ceebo Diop nga xam ne mi ngi ñu denc fii sëñ Mor Anta Sali nekk di noppalu muy deqali moom sëñ Masamba Anta Ceebo moom dafa nekkoon mbokkum daara. ci woy juróom am balla wax nañ ne sax ñoom ñaar sëñ ma sàmbante ceebo ak maam Balla e, ñu ngi jële xam-xam maanaam jànge nañ xam-xam ci maami soxna jaara ak maami sëñ Bousso bi yi ñuy wax sëñ ma tabara Bousso sëñ ma tabara Bousso mooy woy juru sëñ ma Bousso Awa Mbaay mi nga xam ne mooy woy juru soxna jaaratullahi Mariama ak sëriñ bu soobee ak ñooñu bokkal sëriñ saa euh, euh, boo demee ci minan Cheikh Amadou Bachir day wax ne <clears throat> li ma gën a jàpp moom Cheikh Amadou Bachir mu ne li ma gën a jàpp mooy ne euh, sëriñ moor Anta Sali ak sëriñ bu soobee ñoom ñaar ñu ngi jànge xam-xamu naxwu ci Masamba Anta Ceebu moomu nee na nee na loolu la gën a jàpp andi sax ay tegtal ci téere boo xam ne jàpp na kenn ci ñoom ñaar moo ko taalif ginnaaw bi ñu jeexale benn téere bi naxaw bu ñu xam ci téere naxaw yi kon jàng jaar na ci boroom xam-xam bu mag boobu eh, ginnaaw bi it ni ma ko waxee woon wëndeelu na dem ba dem ba Saalum jàngee ci boroom xam-xam bu bu tedd bu fa nekk fóore ju mag ju ñuy wax sëriñ Mouhamadou sàll ci dëkk bu ñuy wax bàmba nga xam moom buñ ko tuddee rek xel yi sax dem ci turu sëriñ bu mag bi turu cosaanam muy bàmba ji nga xam ne wax nañ ne moom sëriñ boobu yi nga xam ne mooy sëñ mu sëñ Cheikh Mouhamadou Sall eh, moom lañ ko tuddee moom lañ tuddee sëriñ bu mag bi loolu defe naa tuddoon nañ ko ci suñu jotaay yi jàll eh, kon jaar na ci ay borom xam-xam yu fasanti ko yoo xam ne kenn ku ci nekk tàng na ci yow loo xam ne doy na ko sëkk ba mujj doon kàngam gu mag ci xam-xam ak sàmm ak mën a jàng ak mën a jàngale moo tax Cheikh Ahmadul Bachir ci minan bi mu koy bi mu koy melal moom sëriñ Mor Anta Sali dafa wax ne aalim la aalim la woon faqih la woon waaye nabil borom xam-xam bu mag la woon ku déggoon fiq la ku yow la woon itam nag ci wàllu xam-xam ak ci xel mu rafet loole it taxoon na jullit ñim jamonoonteeloon nanguloon ko <clears throat> tànn daan ko taa daan ko taamu it ci mu doon seen imaam mu di leen jiite ci wàllu diine di leen xelal itam ci wàllu diine ak ci wàllu àddina taxoon na it ak jikkoom ji rafet ji nga xam ne moom la boole woon ak xam-xam bu rafet bi ak sàmm gi taxoon na itam kilifay àddina yi ak kàngami àddina yi daan ko sopp lool di taamu ànd ak moom ak jaxasoog moom ngir mën a jariñu ci li ko yàlla defal awatan nag bi ñu xamee ci moom ne ku dëggu la ci ay waxam waaye ab atteem itam atte bu jub la bu tegu ci yoon lay doon boo xam ne ak jeng du ci am ci maandu lay tege Euh, kon loola euh, bu ñu demee ba ca kanam ci digganteem ak Lat dana ci feeñ li bokk na ci liy firndeel ne boroom xam-xam la woon mooy ay boroomi xam-xam yu ñu xam dañoo jaar ci ay loxoom ndax buñ nee diw boroom xam-xam la mënees na koo xamee ci ñi mu jàngal mënees na koo xamee ci li mu bind mënees na koo xamee it ci ay jëfam ak ab liggéeyam te bokk na ci kàngam yu mag yi nga xam ne jaar nañ ci loxoy sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali euh, suñu yaakaar ji nga xam ne moom lañuy la ñuy waxtaane Cheikhul Khadim nga xam ne bu ñu ba ci kanam danañu andi euh, ay firnde yu leer yoo xam ne mooy wane ne euh, lu bari ci xam-xamam ngi ko jëlee ci way juróomu tedd bu baax woowu bu ñu àggee ci ci di tudd ay sëriñam moo tax sax dana danañ faral di gis ci ay mbindam yu njëkk yi nga xam ne bi mu koy bind booba waajuram a ngi fi ci suy tàmbali lu mel ne téereb xam-xam dangay gis muy wax ne ki bind téere bi wala ki wax wax ji mooy doomi sëriñam doomi sëriñam euh, loolu bari na fu mu koy wax qaala bnu cheikhihi alladi laa yuxmadu fi nafsihi si wasmihi muhammadu ak qaala bnu cheikhihi lmbakiyu ahmadu adxalahu xayra aljinaani samadu ak yaquulu ajazu albaraaya almuftaqir ila ilahihi alganiyi almuqtadir muhammadu bnu cheikhihi muhammadi laa zaala majzuban li diini samadi yooyu yëpp da ci wone ne ki ko jàngal mooy bokk na ci ñi maanaam bokk na ci ñi ko jàngal xam-xam ka ca jiitu mooy juróom di sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali kon bu doy na tegtal rek ci xam-xamu sëñ Mor Anta Sali maanaam Cheikhul Khadim rek doy na moom doy na ci ne borom xam-xam la waaw te eh, eh, am na xasiida goo xam ne bi ko sëñ bii def eh, di ko ci tàgg boobu wax nañ ne sëriñ bi amagul lu ëpp fukki at juróom-ñett nga xam ne mën nañoo sax xëy na jàpp ne mooy li mu njëkk bind li mu njëkk a def ci wàllu woy wala bokk na ci li mu njëkk a def ci wàllu woy ndax booba ci fukki at ak juróom-ñett daanaka lay toll euh, mu muy muy xasida gu yéeme goo xam ne da ciy tagg woy juróom woowu fekk booba da doon jël ci moom xam-xamu arud muy xam-xamu woy mu mi ngi ko tàmbalee ayaa man baal ahkaami yaa xawsa dillii lii ayaa qarmu yaa naamuusu yaa xutuba zal jiili xasida gu neex la goo xam ne incha allah buñ demee ba toll ci sëriñ bi taalif du ñàkk ñu dellu siwaat ci waaye loolu lépp rek day wane ne sëñ Mor Anta Sali daal borom xam dëgg la woon bu mag a mag ndax doy na ci tegtal rek Cheikhul Khadim waaye bokk na ci itam ñi nga xam ne jaar nañ ci ay loxoom te ñooñu it di wane ne kii leen jàngal géej la woon ci xam-xam mooy ku mel ne sëriñ Masamba Mariama Jóob mi nga xam ne moom jamononte na ak sax soxna jaara ba xasiida goog yi gu siiw googu nga xam ne ci la ñuy tàgg maam jaara e, moo ko def muy xasiida ak sëñ Masamba Mariama Jóob moomu e, di maam ci Cheikh Mouhamadul Murtada e, te mu shahid nga xam ne dañ koo faat moom jaar na ci daara yi sëñ Mbàkke Mor Anta Sali bi am na sax ci euh, bi muy tagg maam jaara am na ci bayit woo xam ne sax da cay firndeel xam-xamu sëñ Mor Anta ak nimu mu euh, géejoo ci fànn yi ci lay waxe naan wa kam balidin ata lil ilmi sayidaha fartadda yulimu saxbaana bna saxbaana <coughs> bari waa na koo xam ne dafa xamul dara am xelam lëndëm mu doon ko réer ku gàtt xel waaye yàlla wommat ko mu ñëw ba ci sëriñub soxna jaara bii di sëñ Mbàkke Mor ngir wut si xam-xam ataalil ilmi waaye bu ñëwee bu ko jàngalee ba noppi ci moom bu delloo day jàngal sax saxbaanam nu saxbaan ngir xam-xamam bu yaatu xam bu bu bu bu bu xóot te te te te te te te sori sori am lef bokk na ci itam ñi nga xam ne jaar nañ ci loxoom it ki nga xam ne moo euh, sos daara ju mag yi ci jaamal ñu koy wax alxaaji abdullahi siise moom it wax nañ ne jaar na ci sëñ moranta sali euh, mm, ci wàllu xam-xam te kooku it ku ne gis na ne am na ay kàngam yu mag yoo xam ne moom itam génne nañ ci ay loxoom ci euh, fànn yu wuute bu ñu demee ci euh, ooy Serigne Moussa Ka mi ngi ciy leeral moom itam ñi nga xamee ne noonu la sëñ Mbàkke Mor Anta Sali doone woon maanaam njobbaxtan lu lu kawe ci mbaax waaye ni mu doone woon itam koo xam ne ñu bari ci ay kàngamit jaar nañ ci ay loxoom ba géeju ci fànn yu wute ci xam-xam ñoo xam ne mujj nañ doon ay imaam yu mag ñenn ñi doon ay borom xam-xam yu mag sëñ Musaa Ka mi ngi koy findeel ci woyi arab sax yu neex yoo xam ne ma ngi wax naan yaa saaili an ali walidi alxadim alcheikhi mamar anta aabidi alqadim fa huwa cheikhun aalimu aldaqaiqi bayna alcharaici maa alxaqaiqi walnaxwi wallugati walbayaani walfiqhi walxadisi walmaani mu ne moom suñu moon yow mi nga xam ne danga may laaj lu aju ci ci njabootug way juru Cheikhul Xadim daal boo bëggee mën naa laa xibaar moom lu aju ci jëmmi way jur wi ci boppam moom moo doon kan kooku daal soo ko xamut mooy sëñ Mor Anta Sali bi nga xam ne jaamukatu yàlla bu mag la woon kilifa la woon boroom xam-xam la bu xamoon sew-sewi xam-xam yu xoot te yaatu ku boole woon sharia ak xaqiqa la woon ku déggoon naxwu lool ak luga lool ak bayaan lool ak fiq lool ak xadis ak maani mboolem xeeti xam-xam yëpp da cee géej woon kooku daal weesu woon na foofa sax moo taxoon nag mu mu doonoon attekat boo xam ne su masaana atte mboolem attekat yu mag yëpp dañuy luum dañuy wedam waaw ndax moom yàlla da ko mayoon mu mën a leeral te mën a te te te ab attee mi tam nag di jub ni ko Cheikh Amadou Bachir waxe woon ci ginnaaw moo tax ne fa huwa qaadin afxama alqudaata wa huwa haadin ardama aludaata mooy attekat bi nga xam ne wedam loona attekat yi waaye mooy ku jub ki nga xam ne itam nag noon bu masaana ñëw ci kanamam euh, mu jëflante yow ba nga ba nga daw ba nga alko moo kam aalimin shaa min albuldaani minhu taqabbasa bila buhtaani bari waa na boroom xam-xam bu siiw ci réew mi ci ci ci ci biir Sénégal bu ñuy tudd xam-xamam te kooka ma nga nii too ci leeri xam-xami sëñ Mbàkke Mor Anta Sali kon ñi mu jàngal daal ñu bari lañ mën nañ cee tudd ñooñu rek bu ñu delloo it nag ci li ma waxoon ne bu ñu nee di borom xam-xam la ñu ne mënees na koo xamee ci ñim jàngal mënees na koo xamee ci lim lim bind walla wala lu mu wax sëñ Mbàkke Mor Anta Sali nag am na benn bataaxel boo xam ne sëñ Mbàkke Abdurahmaan andi na ko ci gëstu bu am solo bi may wax nga xam ne day wane xam-xamam bu xóot ak it ni mu amee woon infitaax ak ubbeeku saqaafam ci wàllu luxa lettre boobu da ko doo da koo bindoon doon ci jaale woy juróom maam maam Habibullah maam Balla bi nga xamee ne maam Abdul Qadir doomam ju tedd ju baax jooju faat nañ ko faatin wu tiis wu metti sëñ mu war nag bind bataaxel boo xam ne boo ko jàngee bataaxal bu gudd la boo xam ne ma ko cay ma ko cay dëfal di ko ci xamalit sax moom ci boppam tawat ji nga xam ne moo ko gaar ba sonal ko lool waaye teewul rek mu fexe ba jël xali maam bind bataaxel boo xam ne mi ngi ko tàmbalee ci fa min muhammad fa min muhammad ibni habib ila marjuwihi wa marjuwi kulli muslimin fi daarini abihi wa xalifatihi cheikhi mbakke foofu loolu kon day firnde ne booba maam Habibullahi mooy sëriñu Mbàkke boobu mooy borom Mbàkke alkarim ibni alkarim alfaadili alladi faddalahu llahu ala kasirin min ibadihi almuminin euh, noonu la ko tàmbalee nga xam ne daal di koy dëfal jaale ko euh, ba ba ba ci indil ko fàttali ko waxi suñ boroom yi nga xam ne da ci dig ñi nga xam ne bu leen nattoo tegee nattu ñu muñ muñ bu muñ gu rafet te mbokk ci alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ba noppi itam fàttaliku ci biir lettre boobu itam boo xam ne ci arab yu yu yu yu xóot yu neex dégg nga ci la ko def mu mu fàttali di ko dëfalaale itam ci ay natt yoo xam ne daloon na ay nit ñu baax bokk ci maam aadama bi bi nga xamee ne rey nañu haabil di doomam bokk na ci itam sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xamee ne keroog bi ñu reyee bàyyi taxam Hamza de ba noppi dégg nga tamsiil ko maanaam daggatee ay dégg nga ay cëram la digal ko mu muñ te ko wasbir wa ma sabruka illa billah euh, boole ci moom sallallahu alayhi it ñu xam ne ay doomam yu góor yëpp dañoo faatu ci dundam itam dara gënu ko metti yooyu yëpp mu di ko fàttali ba fàttali ko sax musiba wala nattu moom Mame Balla yoo xam ne yu ko jege lool la ci ci ci askan wi lu lu mel ne faat guñ faat doomam ju ñu wax Ceerno Farimata euh, maanaam doomi maam maharam muy maam Thierno Farimata nga xam ne moom itam ci ngay xamee ci leetaru Mor bii ne dañu ko faat moom ak lu mel ne euh, faat guñ faat doomi Cheikhul muy maam Balla Touré euh, moom itam tudd ku ñuy wax euh, dégg nga ma dem ba Xarija nga xam ne moom it dañ ko faat nga xam ne daal ñu ñu bari tudd na leen ci ba ci ku ñuy wax sëñ Moussa Jaxate moom itam nga xam ne dañoo faat doom doom joo xam ne mi ngi tudd Ibrahim mu jeexale ko nag ne ko nag qul maa kuntu bidaan min ar-rusuli wa maa kun ne ko qul maa kuntu bidaan min ar-rusuli wa maa kunta bidaan min al-musaabin lii la dal daal naka jekk daana dal woon ci gaa yu baax te ne ko ñii ma la tuddal ñoom ñëpp nag kenn ku ci nekk doom ji ko yàlla joxoon da koo bëggoon lool comme ni nga bëggee woon sa doom ji waaye ànd ak loolu lépp nag dafa muñ muñ gu rafet kon nag fasbir sabran jamila daal di jeexale lettre bi nag ne ko boo muñee muñ gu rafet googu yàlla dina la ci fàggul juróom-ñett yoo xam ne yëpp ay karamaat la bëgg an nusra dana la dimbale dana la tàbbal àjjana xurafaatul janna dana la jox itam al ajrul jazil boole ci al bishaara alsalaa al rahma al hidaaya te yooyu yëpp mi ngi ci aayay alquran yi nga xam ne bokk na ci inna allaha maa sabirin wallahu yuhibu sabirin ulaika yujzawna al xurfata bima sabaru innama yuwaffa sabirun ajrahum bi gayri xisaab yi nga xam ne mi ngi ci allazina ida asaabatu musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma ulaika hum muhtadun lii daal mooy bataaxil bi nga xam ne moom sëriñ Mor Anta Sali moom la yónnee woon way juram maam Balla di ko ci defal ginnaaw bi nga xamee ne yàlla dogal na uh, ñu faat doomam ji nga xam ne mooy maam Abdul Xaadir kon mbokk yi waxtu yi dañoo dab bu ko defee foofu rek la ñuy tënk uh, li nga xam ne tey moom lañ waajaloon mu jëmoon ci Euh, euh, tënk aslëf ci dunduk kenn ci ñaari wayjuri sëriñ bi di wayjuram bu góor di sëriñ Mor Anta Sali incha allahu taala bu ñu dellu si ci yeneen jotaay lu ci desoon danañ ko mottali soog a ñëw nag ci soxna jaara buñ ci jógee nag ñëw ci nijaayam sëriñ bu soobee ak ci maamam tafsir Mbàkke Ndumbe ba ci soxna Astawaalo ndax ñooñu ñooy al muhitul us al al al al usari wala boog environnement familial bi nga xam ne ñoo ko gën a jege te am jeexit mag yoo xam ne def nañ ko ci moom ci wàllu yaram ci wàllu njàngam kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci teewlu bi di leen jox daje incha allahu taala ñaar fukki fan ak juróom ci weer wii di ñëw di ñaan yàlla defal ñu dégg ak topp wa axiru am an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ngeen àndoon nag seen GMT TV di maanaam télévision bi nga xam ne moo nekk fii fii jumaay cheikhul xadim ci ci euh, Touba al kon jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإني أحمد